أحد إني أخو ثقة أن تأخذوا بيدي لولاك لم يقع التكوين ما خلقت شمس ولا قمر إليك مستندي فاجعل محبته عيشي ونصرته سعي ومعناه مصداقا لمعتقدي وأبدلن نحاسي يا كريم به درا وروح بذكراه على كبدي أهمة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر عن مدد أخرى الحضارات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بتاي سني درس عنوان الحكم نيجي أول في أبو الفتح نان كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحر قنيان وغنيان ولو فيه للحر إن حققت xunyaanu muy jangale doylu ci adina doomi adama mun na am adina ak li ci biram waye bu ko yalla xagne doylu day melni ni amu dara dafa am kuma netali mo mooy kilifa am bu ko nettali ne ko dafa dem bank verser 5 millions day ak ben way mu koy sarax ma na ko amam gi xaw ma këram de waaye feeñul sax ci jëmmam da gis ku doylu nag koo xool jàpp ne dafa am te fekk doylu moo ko may lool jàng nañ ko démb ci saxaaba yi nga xamante ne wala barki démb ahlu suufa li yàlla wax ci ñoom laa yasaluuna annaasa ilxaafan yaxsabuhum aljahilu agniyaa min attaafufi te doy loolu li la yàlla may daal mm-hmm. loolu mooy dëgg-dëgg fegu mm-hmm. muy wax ne kafa min al ayshi maa qad sadda min awazin mm-hmm. lépp loo xamante ne dana la fegal ñàkk loolu doy na ci dund ndax addina bi ay dénkaane la yoo xamante ne mu neex la da nga ko delloo mu naqad la da nga ko delloo innama dunya hibaatun wa awaarin mustaradda shiddatun baada raxaain wa raxaaun baada shidda mu ne àddina ay may la yoo xamante ne ay may la ak dénkaane yoo xamante ni bés dana ñëw ñu nanguwaat ko ci biir dénkaane yooyu nag ak biir may yooyu danga nga jugee ci jafe-jafe dem ci yomb-yomb jugee ci yomb yombu dellu ci jafe-jafe loolu mooy xaali àddina loolu la Seydina Ali doon wax ne innama dunia إنما الدنيا هباء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت من من عدنا بير la moo xamante ne comme lu amul rek comme lu amul la ndax yagg jeex amut saxuwaay saxuwaay bi yàlla bañ na ko buy nettali àddina alal àddina ni mu bëree suñ yëpp mataawoon xalil rek lay wax kon ngëneel gi mi ngi ci àlaaxira wal axiratu xayrun wa abqa wa risqu rabbika xayrun wa abqa yàlla melal na boppam loolu melal wërsëgam noonu wës melal àlaaxira noonu waaye àddina mataawoon xalil wax moo tax Seydina Ali mu ne mu ne àddina boo ko xoolee dëgg dafay niroo këri jargoñ te yàlla wax na ci këri jargoñ ne wa inna awhana al buyuti la baytul ankabut la baytul ankabut mu ne fekkee ku xelu nga loo dundee de war na laa doy ci diggante bayti yi depuis démb ba tey dangay gis ne dafa mel ni dafay ŋàññi am fekke na am bu ñuy yàq lay ŋàññi rek waye am alal ju bax diko def ci lu bax alal bu melni alal Seydina Aboubacrin di ko def ci yàlla te taxul nga ñak alal bu melni alal Seydina usman diko def ci yàlla nga xamne ne lëlu xare yenente bi warna taxaw ñi dem amul luñ ko waje mu xadul lëlu xare bi yëpp ba yenentu bi garantie ko garantie yoy mu garantir ko ah di jël or bi diko ko nan wallahi ma darra usman ma faala baada al yawm gannaaw tay usman lum defati rek duko lor alal boobu xam nga ken alal boobu ken duko ko waaye alal bi ñuy ŋàññi mooy bi nga xam ne yow munoo koo def ci sa bopp mënoo koo def ci say mbokk waaye mënoo koo def ci yàlla alal boobu la ñuy ŋàññi waaye am alal moom kenn ŋàññeewu ko bu dee du la yàqal dara ci sa diina ndax am na ñoo xam ne comme ni ko yonentu bo waxee ñu jàng keroog ci xadis yonentu mu ne nga jugee fi dem bàyyi fi ay doom yoo xamante ne da leen doon loo alal ñu dundee moo gën nga bàyyi leen fi ñu ñàkk di yalwaan nit ñi Euh, yow mi sàkku àddina doy na la ci nga am loo dundee am na ñu doy loo lool waaye am na ñu soxla lu ëpp lool te du leen yàqal dara moo tax mu ne kafa min la ayshi ma qad sadda min awazin lépp loo xamante ne daal dana la fegal ñàkk nga bëgg kër tabax nga bëgg oto booy dawal dawal nga bëgg dundal sa njaboot dundal leen mu ne loolu doy te loolu dëgg-dëgg sax loolu doy na am na ñoo xam ne nag li ñu am denc ko ci banque bi mun naa dundal ay junnee junnee junnee nit euh loolu mom luy serigne bi di wax dañ fay jitu té alal way mom moomuñ ko alal yàlla la mané fa fihi lil hurri qunyan wa xunyaanu nit bu démé ba am lo xamné mën nako dundé dundal ci njabotam faj ci ay soxlam deug deug loolu doyna ci kom loolu doyna ci kom mune wa dhul qanaati raadin min maishatihi wa saaxibul xirsi in athara fa xadbaanu mu ne ku yàlla may xanaa doylu foo ko fekk rek dangay gis ne kii dafa gërëm dundam bi waaye ku yàlla nattoo xir luñ ko mën a jox ci alal àddina rek da ngay fekk ne dafa mer ndax bët bu set mi ngi gën a sonn pour ut te lu tuuti rek bu demee ci alal bi mu mel ne àddina dafa tukki du xalaat li nga xamante ne moom la ko yàlla desalal am na koo xam ne mun naa denc fukki million cent mille réer ko nga gis ko mu téye lampe torche yu bëccëg di nit kooku moom xalaatul li ko li li yàlla eh, xalaatul li ko yàlla bàyyil de li ko yàlla jëlal rek la xalaat te ku nekk boo amee nattu boo xoolee dëgg-dëgg di nga xam ne yàlla bàyyil na la loo xamante ne war na laa muñ loo am am dix cent mille réer nga mel ni àddina bi dafa tukki xalaatal li des yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci xanaa ne kanzun laa yafna ne namb la boo xamante ne ndaxañteef la boo xamante ne du mës a jeex ku ko am day mel ni am nga lépp te ku ko am sax am nga lépp te wax ñëw na ci beneen xadis ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne man radiya bi ma qassama allahu lahu daxala aljannata képp koo xam ne yàlla sedd na ko mu gërëm li ko yàlla sedd danay dugg aljana ndax nangul bi mu nangul yàlla noonu ba tey ñëw ci xadis mu ne Eh, eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne mu ne eh, yàlla subhaanahu wa taala dafay nattu jaam bi ci lim ko jox inna allaha yabtali nnaasa bima aataahum fa man radiya bima qassama allahu lahu fa man radiya bima qassama allahu lahu baraka allahu lahu fihi wa wassaahu yàlla daf lay jox alal di la ci nattu alal bi bu yegsee nga gërëm li la yàlla jox yàlla barkeel alal bi ba pare yokk ko wa man lam yarda bi ma qasama allahu lahu lam yubaarik lahu fiihi wa lam yuctihi illa ma kataba lahu ku nanguwut alal boobu nag ku nanguwut li ko yàlla may feeñal ci doylu feeñal ci gër ngërmande yàlla du ko yokkal dara ci alalam te ñëw na ci xisa baay indi ko ci tafsir mu ne am na koo xam ne dafa ñëw ci eh, yenentu jamonoom ne ko ñaanal ma am alal yenentu jamonoom ne ko yalla dafa dogal na ben ci sa xaji dund yi nga mëna am alal tanal xaj bu njëkk wala xaj bu mujj mu ne bama dem laaj sama jabar ba paré xamna jabar ju baax mun nañ di di di sok mom xalaat mu dem laaj jabaram jabaram ne ko demal nga jël xaj bu njëkk bi mu ne ko ah, am ñak mu am ba paré ñak metti na de mu ne ko yow demal rek bo ñëwee dina la wax li ngay def mu ne mu dem ne yenentu yenentu jabonom ñaanal ma ma am ko ci sama xaaji ah, euh, dundu bu njëkk bam ko ñaanalee mu am mu ñëw soxna ci soxna ci ne ko léegi xam nga loy def sa yo tabaxé kër pour sa bopp waxal benn kër may ko miskiin yi saa yoo jëndee yére pour sa bopp jëndal yére may ko miskiin yi saa yoo eh, rayee gàtt pour sa bopp rayal gàtt ngir miskiin yi lépp loo defal sa bopp defal ko sa njaboot rek def ko ngir néew ji doole yi nga dëkk ci loolu mu dëkk ci loolu ba xaaji dundam bi jeex yàlla wax yu yenantu jamono bi ne waxal sama jaam bi ne ko man maa tànnoon ne danaa ko may alal ci xaaji dundam bu njëkk bi léegi nag dogal naa ne dundam bi yëpp laa ko may alal ndax gis naa ne sama sama jaam bi ba ma ko mayee fàttewul waaye sant na mooy wala in shakartum la ko sant bi nag du ci ay wax rek waaye jëf bi tamit da koy fekkee jëf bi da koy fekkee moo tax euh, euh, yàlla bu la mayee nga doylu may na la lu bëri waaye ku amul doylu dangay ngay sonn rek te terewul li yàlla namu ci yow rek ngay am ñëw na ci euh, ci tafsir inna labraara la fi naimin wa inna alfujjaara la fi jahimin ne inna labraara ñu ñi sellal bas penc yàlla lim leen xadul pour seen fay mooy aljana wa innal fujjaara la fi jaximin ñi nga xam ne dañoo lu nekk ay saay-saay nekk di bokkaaleeg yàlla seen euh, euh, liñ leen di euh, jox ci loolu bés penc mooy mbugal leen dugal leen safara ñëw na ci tafsir Mawridi muy wax ne aaya bi am na ñaari tafsir tafsir bu njëkk bi mooy ne aaya bi pour àllaaxira la mooy ku baax dugg aljana ku bon dugg safara maa ngi fàttaliku mos a nekk France ci oto bi xaw ma lu mu doon bi rek ma ko yàlla waxul kenn dara ma ma yàlla wax na kenn dara kay inna bravo fii fi naa inna fujaal fii jaxim ko wax ah am na ñu ne ci àddina la àddina la Mawardi wax ne loolu nag ñeenti tafsir ñëw na ci ñeenti dégg-dégg ñi nga xamante ne dañuy am xel mu sell mu ne bu njëkk mooy inna la fi naimin xéewal boobu baax ñi ci àddina mooy doylu safara boobu ñeel ñu bon ñi mu ne mooy nit ku bëri xememteef tama naawuzu billahi min dalik wala mu ne am na beneen dégg-dégg mooy xéewal boobu ci àddina mooy tawakkul wa man yatawakkal ala allahi fa mooy tawakkul ci yàlla subhanahu wa taala am na ñu ne déedéet waaye jaxim bi ci ñu bon ñi mooy nekk ci àddina ba pare yàlla nattoo la xers beneen tafsir mu ne naim boobu noonu ci àddina ñeel ku baax ki mooy nangu ndogal yàlla yi subhaanahu wa taala te nettal nañ ci xadisul xudsi ne yàlla wax na ne man lam yarda bi qadaayi wa yasbir ala balwaayi fal yaxruj min taxti samaayi wa yabudu rabban siwaayi sama atte la maa ko atte ci yow boo ko nanguwut génnal sama ron asamaan bul doxat sama kaw suuf nga beneen borom bu dul man loolu kenn mënu ko jaxim bi ci ñu bon ñi mooy ñàkk nangu ndogal lu yàlla def rek nga bañ ko te fekke ne bañ boobu du tax mu soppeeku dem wax nañ ci ci muanadatul aqdaari shirkun wa tutebu wala naim bi ci àddina mooy def jëfu topp yi jaxim bi ci ñu bon ñi ci addina mooy mooy yàlla ci àttee mi te nit ku nekk war na di ñaan yàlla yàlla yombalal ko jëfi toppee moo tax nga dégg bàyyi di wax ne wa an tuyassira li taati ajmaaha wa an tuassira lil isyaana yallaahu kon yàlla kum may doylu dëgg-dëgg may na la comme te àddina ak alaxira moo tax am na koy wax ne qanaatu lmari bi ma indahu mamlakatun ma mithluha mamlaka fardaw bi ma qad jaa afwan wala tulqu bi aydikum ila tahluka doylu bu nit ki am ci àddina mu ne loolu nguur la boo xamante ne nguur melut ni moom li leen yàlla jox gërëm loo leen ko bu ngeen ko gërëmee nag bu leen jël di sànni seen bopp ci loo xamante ne alkande mun na leen cee fekk te am na ñëw na ci tafsir ne fa lanuxyiyannahu xayaatan tayibatan mooy danañ la def nga gërëm nga nga am doylu ci li la yàlla xéewalee te am na ñu firee innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahirakum tathiran ne bàkkaar boobu yàlla wax ne daf ko bugg a génnee ci askan yonent bi sallallahu alayhi wa laabal leen mooy mu laabal leen ci ñaari jikko yi nga xamante ne mooy nay ak jikko bi nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy ñàkk a doylu oh, laabal leen ci jikko bi nga xamante ne mooy nay te may leen te may leen doylu uh, bu dundee jikko yu ñaaw yi tegal leen jiko yu rafet yi moo tax ku am xanaa yàlla may na lu nekk addina lépp boo ko amoon boo doylu tamit du la jëriñ dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne law kaana libni aadama waadiyaani min dahabin labtagaa thalisan wala yamla'u wala yamla'u faahu illa turab Euh, doomi aadama buñ ko tegaloon ñaari montagne or sax itteem bu njëkk mooy dafay jéem a dem ut ñetteel biiri doomi aadama leen rek bu mun a feesal mooy suuf mooy moo tax doylu daal mooy doyloo li nga am inna alganiya huwa alganiyu bi nafsihi walaw annahu aari almanakibi walaw inna alganiya huwa bi nafsihi walaw annahu عار المناكب عاري ولا ما كل ما فوق البسيطة كافيا وإذا قنعت فبعض ذلك كافي دويلو دال موينغا دويلو شي سبب غنى النفس ويلي باي غنى النفس أبغي والعلاء سابغ من سخ بدي ولو أنه عاري المناكب حافي ولو أنه عاري المناكب حافي بدي سخ أمو لوصل دعني فان دانيو أمو دال waaye gëm nga ne ñàkkoo doylu nga loolu sa xol yow yaay ki nga xamante ne yaa am li nekk ci kaw suuf yëpp mu ne buñ la ko joxoon tamit du la doy waaye boo doyloo loo am rek mu doy la yan lañ yàlla may doylu moo tax mu ne wa dul qanaati raadin min maishatihi wa saaxibu lxirsi in in asra fa xadbaanu lu mu am ci alal àddina rek mi ngi mer ndax faqirun kullu man yatma ganiyun kullu kullu man yaqna loo bëri bëri te doy loo bëri la te doy loo yaa ngi ñàkk yéen a am képp ndax alal bi da nga koy mujj ragal waaye ku doylu ko ko ko dëgg-dëgg mi ngi ci koom xasbul fata aqluhu xillan yuaashiruhu ida taxaamaahu ixwaanun wa xullaanu mu ne doy na nit ki ascam xelam àndandoor heure bi nga xam ne wan na ko gannaaw ay mbokk wan na ko gannaaw ay xarit doomi aadama buy dund ci kaw suuf bëgg na ay àndandoor imaam ahmad ibnu hambal dañ ko wax ne ko lu tax bëri waaye àndandoor mu ne ndax tàqalikoo dafa métti tàqalikoo dafa métti boo demee ba xam ne nag nit ñi mënatoo ànd ak ñoom benn mag moomay wax ne ma mu ne moom bañut a ànd ak kenn waaye xaar la mënut mu ne moo tax néew na nit gis ko mu ànd ak nit ñetti koñ dëppaat mu ne wax na sax jamono ku ko gis mu def lool rek nga wax ko mu may la fukki junne ndax moom bu àndee yow boo taxawee di nuyoo sax mu romb la dem yoonam boo demee ba nga xam ne nit ñi mënatoo ànd ak ñoom mu ne doy lool sa xel waaye ñii liñ dund gis ko lañuy wax li ci ànd ak yow te baax jël ko li nga xamne ne àndut ak yow nga bayiko amna lo xamne baxna sax waaye yow sa jamono moko mayawut moko mayatul ko ba boobaa tamit jarul jël wax jo xamne dal daal amul dara luñ ci teggi mom waxi alquran la waxi yantu sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamantene ne seen ndono ci yantu dafa wér ndax luñ wax rek du génn waxi yantu ak waxi yàlla waaye wax mo xamantene tajriba rek la moko indi amna ci lo xamantene mën na am sa jamono du la ko may du ñep ñoo mëna and ak seen xel eh, ñoo ñoo mën a seen bop rek and ñu amna na ñoo xamne seen téré doy na leen xarit téré bi dana la jox njëriñ té mu né du la weeje mukk du la a du la mus a nettalil lay di wax ci ci ci ci ci ci ci ci làmmiyaam bi Bam démé ba bay nit ñep dem ci all bi def ñay all yi ñe and ndoram mu leen di tagg mu né humul ahlu لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت ولا الترائد أبسل من بعين نني دمج على بدك دك جاي عليه ما ينك نوي نوي نوي نوي أي نوي أي أي نوي نم دك دك نخدولين دينك بود نوي أجاكو شو من تواري ما يتعين بوتون يتشين بير نيني ودلا سيد مثلا أه، دون لا ويجا واحنا كيلا ñi japp la mooy ne nit ñi bo leen denké mbot ñu siwol ko te bo tooñee nek seen bir yag yag bu le police ñewon di lijeenti légui buñ leen titélé wala ñu may leen xaalis ak ñi ne mom la japp leen ko mu ne moom ñim tan nak duñ def lool te mu ne ay kat lañ euh, ay jambar lañ euh, dégg kenn euh, bam jaa lim leen taggé non waye comme liñ ko waxé rek yantabi sallallahu alayhi wasallam lim wax moy gëna dëgg di ak nit ñi di di di muñ Seni lorange ki kay def mo gën ki nga xamantene ne tak utang nit ñi te nangu ta muñ seen lorange way amna ño xamne jëlé ne nañ ci nit ñi metit bo xamantene bëggatu ño sax ak nit ñi lu su koy joxoon ne ci nit ñi ne ko ghalibuhum munafiqu qad mallahul muraafiqu mu ne ko ñu bari ci nit ñi ay naafeq lañ ñi and ak ñom mujj nañu xadi ci and ak ñom ba balen am la waju doon wax ne euh, euh, di wax ci ci nit ne عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره mu ne maa ngi ci àll bi bukki yeeg xaj yeeg ñoom ñëpp ñu ngi mbéw waaye ma koy wéttalikoo waaye bu ma déggee ba waaye ba ma déggee baatu nit xaw tuut mën naaw ndax tiit xaw ma lu ko nit ñi def waaye métti na dégg nga moo tax kii waxoon ne mu ne annaasu bahrun amiqun nit ñi ay ay ay ay géej yu xóot lañ géej bu xóot nag dëgg-dëgg ku mënul fee wala amoo gaal boo ci duggee da ngay lab annaasu bahrun amiqun wal boodu anhum safina sori leen bi nag mu ne mooy gaal gi am nañu mën a am gaal boo xamante ne du nekk sori dañ jaxasoo nit ñi jëriñ leen euh, jëriñ leen te buñ leen loree tamit ñi muñ ko te loolu loolu mooy li gën a baax moo tax mu ne xasbul fata aqlu xillan yuaashiru ida taxamaa ixwaanun wa xullaanu xarit yi buñ la wanee gannaaw mbokk yi wan la gannaaw na nga doyloo sa xel waaye na nga doyloo yàlla nga doyloo yàlla moo gën a mat doyloo xel na nga doyloo yàlla ku doyloo yàlla yàlla doy ko huma radia libaanin xikmatun wa tuqan wa saakina watanin maalun wa tuxyaanu mu ne mu ne xam-xamu xikma nga xamante ne mooy xam-xam buy jëriñ borom xam ne yàlla wax na ci ne wa man yuutal xikmata faqad uutiya xayran kathiran ku yàlla xéewalee xam-xamu xikma may na la yiw bu bari xam-xam buy jëriñ xikma la benn muy xikma ak tuqaa bi nga xamante ne mooy ragal yàlla xam ne bët bu set dana ñëw ci dars bi lu gën a bëri mu ne ñaar yooyu dafa mel ni ñoo bokk ween wu ñuy nampee ku yàlla may ragal yàlla dina la may xikma ndax wattaqullaha wa yuallimukumullah ku ragal yàlla yàlla xamal la yàlla kum xamal nga xam doomi aadama bi bu mën-mën loo ak boppam ba yegg ci ragal yàlla ragal yàlla bob dina ko don lo yit mu dem ba am hikma xam-xam buy jëriñ ndax xol bu leer lu ñëw ci kanamam rek daf ci am atte bu leer te ibnu Juzay wax na ko Cheikh Hasan tënk tënku ko ci ay bayti ne ibnu Juzayin dhul maqaali l aqwa yaqulu xamsun darajat taqwa ibnu Juzay wax na borom wax bu dëgër bi ci li muy wax ne darajaay ragal yàlla juróom la maqaamu lislaami li taqwal kufri ku ku dem ba génn ci yéeféer ñëw nekk lislaam rag loolu mooy ragal yàllaam maqaamu lislaam mooy mooy mooy taq bu njëkk mooy nga feg fegal sa bopp kéeféer ñëw nekk jullit maqaamu tawbatin li tarkil xadri dégg nga bu dee maqaama tuub ci taqwa mooy nit ki dem ba góorgóorlu ba bàyyi lépp loo xamante ne sharia daf koo ŋaañi summa maqaamu wara an taqwa shubha fegu nag mooy yi nga xamante ne dafa lënt xaraam naag xaraamut nga romb ko fële alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wa baynahuma umurun mutashabihat dégg nga taqwal mubahaati li zuhdin taqwal mubahaati li zuhdin martaba taqwaa ñeenteel bi xaaj yi taqwaa mooy lii dagan na sax waaye bàyyi nga ko ngir bàyyi nga ko ngir topp yàlla rek ngir bañ mu yeggaay la ci loo xamante ne dafa xaraam waaye bi ci gën a màgg ci maqaama yi mooy adamu xutuuri siwa bil wala laxdatan لودو يالا دروت سي خاتيرو جامبي كو يالا ماي راغال يالا دي يالا ماي حكمه موتاخ ماي دافا ميني نيوم ñar اي شيخ لاج هما رضي عالبان حكمه وتقن نيو بوكو ويان بو نامب واي نا وساكنا وطن مال وتغيان من واي ñar ñi تاميت اي شيخ لاج يو خنا نيو بو كير ماي علال اك بيو لو گنا بري دو فيب waye lu gëna bari da nga fekk ne ku yàlla xéwalee lool ci alal àddina dana am ci moom tuuti mbewte néew na bu mu ci muccee waaye du force nit mun naa am alal ba pare baax baax boo xam ne boo ko gisoon doo xam ne ku am alal la ndax oyof ndax kuy rëy rëylu tamit dafa xamagut dafa xamagut luy rëy rek mbir la moo xamante ni ku xëccoog yàlla yàlla duma la moom rek moo ko yelloo alkibriyaa li rabbina sifatun la مخصوصة فتجنبنها واتقي بلا مو خمنتني يالا ريكو كو يالو ني واخو كو مو نيك تاغ كو بوغو موچو نك دنگ كوي فخي واتانديكو تراغال يالا سبحانه وتعالى وساكنا وطن مال وطغيان مجدبو إذا نبى بكريم موطن فله في وراء فله وراءه في بسيط الأرض أه؟ أوطانه أه. بونيك يا تشدك دكي بياوتك يا ولول موي إذا نبى بكريم موطن نك نتي دك دك بي فدتك ياو خات اك ياو موي دو فورس nga دك فا فله وراءه امنا تي كانما في بسيط الارض جي تالو سوف اوطانو اي دك يو بري وراء دافا بوكو شي ييغا خامتاني الضاجل منافر كانوا منافر غناو من ورائهم برزخون خمغا من سكنهم ولا ومن ورائهم عذاب غليظ من بو نيكي سي دك دك بي خطاك ياو دو فورسو nga tok ci dekk bi amna yenen dekk yu fi nek wa ardullahi wasi'atun waye nak nit yalla moko bind mu bëgg dëkk bi nga xamante ne fa soso ndax gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko war a xatib na Nawfal di wax ne sa mbokk yi dinañ la génne li la yàlla war a may gis nga laaj bi ndax dinañ ma génne mu ne ko dañ la génne ndax lu mel li nga indi kenn mosu koo indi ci aw nit lu dul ne mbokk mi génne nañ ko te wax na ci boo xam ne ne Makka yaay dëkk bi bi ma gën a bëgg sama xol yi sama xol bu taxutoon ne say nit ñoo ma génnee du ma fi mës a génn waaye kii dars bi mu la bëgg a jox mooy boo amee loo war a feeñal boo amee loo war a tasaare boo amee mbir moo war a taxawal wala sax nga war a sàkku alal nga gis ne sa dëkk xat naa ak yow mënoo koo sàkku mën a génnal nga dem seet beneen dëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam doy na misaal ci loolu woykat bi mi ngi wax ci moom ne ida kunta fi qawmin yadulluka ahluha ولم تك ذا عز بها فتغربي فإن رسول الله لم تستقم له بمكة حال فاستقام بيثرب يعني كدك وادك بديلا دويا دل أمون فبين ترانغا أه جينا نغرم تمران تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر وفي الأسفار خمس فوائد بابا من غرم تمران كي توكي نجري نيني أوتي توكي نغا أمكو من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم nekk na màkka màkka doxut moom ni mu war a doxee mu génn màkka dem Madina mun a war génnul nag ne dafa daw déedéet ndax nekk naa ñoom fukki at ak ñett luñ ko lor munuñ ko rey luñ ko mënoon a rey yàlla du seetaan loolu waaye yàllaa ko dig teraanga ca Madina mun a war moo tax Baay wax ci xasidaami ne xikmatu hijrati nabil muxtaari عن مكة من بعد وعد الهادي له بنصرة وبالتسهيل تشريف طيبة على المقول حكمة بنكتي قد أيان النبي صلى الله عليه وسلم jóge Makka dem Madina ne yàllaa ko dig ci Madina teraanga waaye yàllaa dig Madina dana ko teddal ci yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam yenentu bi demut fenn pour teddee fa waaye ku ne mooy teddee ci yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ñëwut ci yenentu bi pour yokk ko waaye ku ne yaa yokkee ci yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla may dégg nga آه، وإذا البلاد تغيرت عن حالها بودي بنك شي دك حالة يسوبيكو يو سخوا يدو فرصو دين آه، موتاخ شام فادي بن دون تدو ليغي صاح لولو اوبي قصيدام قلنا اقيم بن يومي صدر مطيكم لن وهم يور في الارض من ان للكريم عن الاذى وفيها لمن خاف القلا متعزل لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل سوف الله بي أمنا برابو سوري واي نيال كتاد وليس لورانجا ينغا خمانتني منك فادب بونيك يا بلاس سميت رجل ف مبانيال بل نيه نغا جوك نغا جوك اوت سرق بو خمانتني فغاي ويتي مونن داخ mu ne mi ngi gën ci dundam ne suuf si xatut ci ascam boo xamante ne dafa bugg a dox doxal ngir ne yow yaa ko tànn dem sànn place wala mënoo ko tànn sax nga gis ne fii boo fi nekkee dañ lay lor nga nga changé place dem ñaar yëpp mën na nekk wa fi l biladi ma xifta nairatan mashhuratan an wila an wulaati suui mubtaadu multamis mu ne boo nekkee ci dëkk ba ragal fa xay ñi jiite dëkk ba ah am na place yu sori yoo xamante ne mën nga faa dem ut ut fa ut fa sa bëgg-bëgg waaye rawatina koo xamante ne dafay gàddaay ngir ut yàlla subhanahu wa taala moo tax ñi tuuboon ci jullit ñi ba pare des màkka ba pare di di di di di raayante yéeféer yi ba ñëw ci ci xaswatu badri ñi rayee ñi ray leen ci biir yéeféer yi yàlla li mu wax ci moom leer na inna alladina tawfatul malaikatu zalimi anfusihim qaalu fi ma kuntum qaalu kunna mustadafina fi l ard qaalu lam takun ardullahi waasiatan fa tahajaru fiha fa ulaika mawihum jahannamu saat masira ñi nga xam ne Euh, ñoo tooñ seen bopp la ko yàlla tuddee ndax tuub nañ boo tuubee kay malaaka yi mooy malaaka yi bañ leen laaj ci euh, fi ma kuntum ñun dañoo amutoon kàttan ndax ndax suufu yàlla bi yaatu yaatuwut ngeen gàddaay dem comme ñi nga xamante ne gàddaay nañ njëkk yéen ñii dem xabasha ta dem xabasha ñii dem madina mun a war a ànd ak yonent bi sallallahu wasallam ngeen rawale seen diina kon place boo fa nekkee mën faa am sa teraanga mun ngaa toog waye bo demee ba gis ne mënatoo fa am sa teranga mu nga albatiku bu dee mun na nek ne sa teranga adina nga don out ci place amoko ko nga jugee fi dem ci benen dëkk outi ko foofu mu na am sa diine nga don out ci place bi amu fa nga tuxu fa dem ci benen dëkk bo xamanténi ne fa ngay rawalee sa diina fa aqim bi daarin ma asabta karamatan wa ida naba bika manzilun fa taxawali foo xamante ne li fekk yaa ngi fay am sa teranga mën nga faa sax waaye boo demee ba nga xamante ne xad naag yow deug yàlla mën nga mun nga euh, lahas dem place bo xamante sa teranga mën na la fa fek lu ci يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله وهل يلذ مذاق المرء خطبان من يا ظالما فرحا nit ki nga xamante ne yàlla def koo may teraanga teraanga boobu gisul xool xool gisul benn anam bu mu ci war a sant yàlla lu tooñ ay jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg kooku texe sori na ko Baay waxoon na ne jaam yi ay jaamu yàlla lay kon bul lor jaamu yàlla yi yàlla may la kàttan kàttan boobu jéemoo koo jeexal ci yàlla yàlla may la teraanga teraanga boobu jéemoo see ut ngërmande yàlla wala nga ne déedéet damay bàyyi lii yëpp dem tooñ jaamu yàlla yi amul kuy tooñ jaamu yàlla yi wala di tooñ yàlla ba pare mucc mënta nekk ñi gënoon a am doole ci niti àddina yëpp bañ tooñee yàlla seen mujj ak yàlla leer na firawna lu yàlla wax ci moom wa laqad jaa ala firawna nuzur kaddabu bi ayatina kulliha فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فرعون ديال الله يونينكو أي أي كاوتف يبري خبو نكو خبو يبري واي لب لويد واي يالله خار نكو بس بو خمانتني جابو نكو جابو كو أم كاتن بو خمانتني رجوت يالله كم جابو دو رجي رب باي أمنا نونا بمدون يعني يالله ne ne yalla koo jàpp doo doo ci diw mii dama bëgg nga jàppal ma ko ko lu méttee ko dal booy tooñ yàlla mun na laa bàyyi ci commencement bi di la istidraaj sanastadrijuhum min haysu laa yaalamun waaye yàgg-yàgg ci ci dumala rek lay mujj ñi gënoon am kàttan ci taarix samuud aad firawn ñooñu ñëpp خلال جنغل القرآن لو يعلم مجرمون فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم عجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذ أخذة رابية ثمود yónne leen ab remb boo xamante ne dégg nañ ko xamul fu mu jugee ñoom ñëpp ñu àll ko ñee yónne ngelaw boo xamante ne sax na ñoom ba alak leen xamante ne tegal na teglante leen na ko comme ni ko waxee juróom benn guddi xamante boo demee si tafsir na la wax ne mu commencé ba si àllarba ci suba chewaal bay chewaal di waaj jeex ba nu mu jeexee noonu firawn ak ñooñ luut ci mutafika ñoom ñëpp bañ tooñee yàlla tooñ ko ci buntu ay jaamam ñoom ñëpp yàlla subhaanahu wa taala daf leen a mujj alak ndax yàlla bugut kuy tooñ te du ko dimbale wa jazaau sayyiatin sayyiatun mithluha fa man afaa wa aslaha fa ajruhu ala allahi innahu la yuhibbu zalimin kuñ tooñ nga fayu em ci liñ la tooñ boo munta muñ dara nekku ci nga yem ci loolu waaye nag ku bëgg a kawe dafay jéggale ba pare rafetal donte na noonu ma ko tooñ boobaa yàlla fayal ko boppam yàlla buggut kuy tooñ ndax mu ne man yàlla bugg ma ay tooñkat te man yàlla yit du ma tooñ wa ma rabbuka bi zallaami lil abid yàlla du tooñ kenn ku nekk li nga def rek loola lay jox moo tax kuy tooñ tamit yàlla mi ngi lay xaaral bés boo xamante ni boo ñëwee dana la ci jàpp-jàpp boo xamante ne du du la euh, dóora ci laa zulma al-yawm ku nekk yàlla day xool loo def sa morom ñu delloo ko ko laa zulma al-yawm moo tax mu ne yaa zaliman farihan tooñ ba pare sa tooñ bi naqadi wala de da nga cee ànd ak bu baax ndax lan li lay dimbale ci loolu mooy teranga bi la yàlla jox fekkee ne dangay ngay nelaw xamal ne jamono nelawut xamal na yàlla subhaanahu wa taala nelaw mi ngi gis li ngay li ngay def waaye yàlla nag mun naa yéexee heure mbugal bi waaye du ko bàyyi ci ku tooñ te mu ne nag yow boo xel woon doo neex lu tooñ mukk tooñ bu doon lekk la dëgg-dëgg ki koy lekk warta neex ak moom mu ne te nag est-ce que nit dana lekk xeetar ak ni mu waxee noonu ba pare muy neex ak moom tooñ tamit boo jàppoon ne li ngay li ngay def nii moo gën a wax xetar bés penc dafa taxawagul waaye bëri na jëf yoo xamante ne jàmm bu koy def dafa fekk ne dafa dafa dafa fugluwul yàlla rek waaye ku yegg ci fuglu yàlla lu bari dana ko wëttandiku te loolu buntu bi ci gën a yaatu mooy jaamu yàlla bi am ragal yàlla bu amee ragal yàlla ragal yàlla boobu bu saxee ci xolom yar ko dana dem ba yaram mbooleemi cëram ba nga xam ne kum gis rek dana attan pour wàccee la sa wàccuwaay te xam ne loolu du ko wàññi dara waaye dana ragal yàlla ragal yàlla boo xamante ne dana ut yàlla ci jaama mi ba du jalgati ci seen kaw waxuma la nag mu leen tooñ waxuma la muy nangu seen xaq yoo xamante ne ñoom ñoo ko moom moo tax mastamra zulma law ansafta akiluhu wa hal yalidhu madaqa almar'i xutbaanu yaa ayyuha alaalimu almardiyu siiratahu wala siiratuhu أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينهما لا شك ظمآن <coughs> مدالوشي مدالوشي لم دون واحد ديمبو بلسك سوريوت تيمين واحنا صحبان من غير مال باقل حسن وباقل في ثراء المال صحبان أه، واحنا نتبوريري وإن أظل لا ظل للمرء يعرى من تخا ونهى وإن أظلته أوراق وأغصان لو منتي أمتي على الأدنى أما رجال يالا من أما بين ترانكا ترانكا دالفا يالا ما رجال يالا مو وخلو نير يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان من يوبرم خم خم بين خمنتني am nga xam-xam ba pare waaye sa doxalin rafet na it mu ne bégal boo amul ndox sax yaa ngi regg ci ndox yaa ngi màndi xam-xam xam bu wër doy na ndimbal ku jaar ci sàkkuwaay yi ñuy sàkkoo xam-xam ut ko sonn ci am ko li ko xam-xam digal mu nekk ci li ko xam-xam tere mu ba ko kooku la yàlla jagleel teraanga mboole seen même bu amul alal àddina tamit loolu du ko wàññi dara bu amul alal àddina loolu du ko wàññi dara ndax xam-xam boobu rek moo doy alal suñ sëñ daara moo doon wax ne oh, moom yàlla xam-xam bi mu ko may kenn mënu koo sàcc kenn mënu koo tiim rek ne damay sàcc sa sa xam-xam bi tey nanga ko mun mënta nekk te mun ne ku yàlla may alal mën na laa booleeg sàcc bu ko sàcc mu ne xanaa nga rey ko rek waaye lim mu bugg a wax foofu rek mooy jaamu yàlla bi buy dund war ngaa jiital jàng lu bàyyi waxoon ne daa budda an tuqaddimi taalluma jiital jàng xam ràññee jàng pour sa bopp njëkk gannaaw loolu jàng ngir ngir koo xam wala ku la xam di dimbali koo ci yow nga génnee ko ci yoon i jubadi yóbbu ko ci yoon i génne ko ci lëndami réer yóbbu ko ci leeri xam borom xam-xam boobu nag bu ko yàlla maye mu am jikko bu rafet mu ne ko yàlla dajaleel na ko koom yàlla dajaleel na ko koom al ilmu wal xilmu xullata karamin lil mari zeynun ida huma ijtamaa ku yàlla may xam-xam ba pare xam-xam boobu ànd ak lewet dëgg-dëgg yàlla boreel na ko ay taar yu rafet ndax mom mu ne ñaari doomi bay lañ yo xamante duñ raf du sen tar du feñ lu dul nak leena nga leen a boole seen waani laa yastatimu xusnuma illa bi jamin illa illa li jamin lahuma maa ndax xam-xam bob boko amé mu wér dana la yëkëti kam min kam min wadiin sama bihi alilmu walxilmu fa naala alalaa wa irtafaa wa min rafii albinaai adaahuma adaahu ma adaa فتضع برنا كو خامتاني كو دايا دي لون امانه وايا بام جانغي با ام خام خام خام خام مكو مو ييكاتي امنا كو خامني سي ظاهر نيت ني لي نغيس كو ييكاتي غولا ناخ بايام ناخ نانغام ناخ علالام مساغاني خام خام مو مودي سوفي متخ رايت العلم صاحبه كريم ولا ولدته اباء لام كو جانغ با ام خام خام خام خام بو موي مودي نيك سا اسكان askan bobu nak ken mënatu ko ken mënatu ko nangu ci yow ta kawe bi mu la kawel tamit ken mënatu ko rekki ci yow waye ba nga jangé rek la lako yàlla may mune wa ya akhal jahli law asbahta fi lujajin fa anta ma baynahuma la shakka damaanu mune yow mi nga xamantene da nga rer bo nekké ci ay duusu géej sax amul ben sikine yow ci mar nga nekk ndax réer rek doy na mar ku ku yàlla may xam-xam mu ne bu amul ndox sax te na jubluwul ndox naan nii rek waaye teraanga rek la ci jublu boo amee xam-xam am nga teraanga donte na sax amoo alal àddina waaye boo réeree amoo benn xam-xam lu la yàlla munti may ci alal àddina tamit amoo dara loolu la loolu la loolu la loolu lañ jàngoon ci ilbiri muy wax ne wa maa yuxnika tashyidul mabaani إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست ومهما افتض أبكار الغواني وإن ركب الجياد مسومات لأنت على المناهج لأنت مناهج التقوى ركبتها ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الاختار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته البيري منى تبخ على التبخ دكواي أدني دولا دوي غناو بيغا خامتاني داغا مابال سا بوب العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف كرغو اموتون كانو صح خم خم منكو تبخ ماي ترانغا بو امول تيوسان خم خم منكو اندي واي ترانغا بو في نيكون تا اموت تا اموت خم خم خم آه، رير منكو نيو مابال لب من بو مابالي سا بوفو سي رير تبخ على تبخ ادنا ييب دوتو لا دوي من بودي نك رير مولا يوبو nga jël alal teg ko ci kaw xam-xam deug deug atte boobu mom amo ci amo ci jappandal dang ci réer té mu ne boo xoolee aaya di nga gis né amna digënté bu ya bu nek ci digënté xam ak digënté réer ñi xam ak ñu réer yalla nee duñ mësa yam wa yalla mo wax ci alxuraan ñaan leen yalla mu yokk leen xam-xam wa qur rabbi zidni ilman mu ne ko boo demee jàng ko sura da nga xam né xam-xam ak alal mom duñ mësa yam moy nak li borom alal bi di def bu la yéemee ma ne da ngaa li nga am boo ko gisee mu mu war naaru góor yi gën a rafet yow yaa ngi war yooni njub te tàggat naaru góor moo gën a yomb fuuf tàggat naaru góor yi njub boo ko gisee naka la béyt bi way bu toogee ci tooguwaay yi gën a nooy la anta la anta ala alkawaakibi qad jalasta yow yaa ngi toog ci kaw bidiw yi gën a màgg mooy ne boo gisee mu toog ci eh, eh, gàngunaay gu nooy gàngunaay bi lu mu nooy nooy yow naay bi nga toog moo ko gën a nooy ndax naay bi nga amee ak ndono bi nga amee mooy ndono yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi bàyyi fi alal bu ñuy séddoo waaye xam-xam lafi fi bu ñuy séddoo ak dégg-dégg bi nga xamante ne yàlla ma na ko ku ko may ci alquran loolu mooy ndono yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko bu doon jànq àddina yëpp takk na leen jël seen ndaw yow jànq maanaa yi nga jël mooy ne téere boo liir rek génnee nga ci dégg-dégg bu bees boo xamante ne yaa ci njëkk a yegg mu ne kon nag yow miy jàng ba am xam-xam alal baax na ñaanal am ko def ko ci yoon waaye boo ko amul yàlla may la xam-xam it xamal ne sa ñàkk boobu du la dara boo demee ba yegg ci xam yàlla subhanahu wa taala muy wax yu rafet xam ne jaaroon nañ ci moo tax mu ne ya ayuha al aalimu al mardiyu siratu siratuhu abshir fa anta bi gayri lmaai rayaanu ku jàng ba am xam-xam di rafetal ni mu waree ko yàlla na ci moom teraanga addina ak alaxira waaye kuréer bu nekkoon ci teraanga yu gën a bëri tamit dafa mel ni amu dara ndax am xam mooy dëgg-dëgg am waaye ñàkk waaye réer mooy dëgg-dëgg ñàkk xam mooy dëgg-dëgg am waaye réer mooy dëgg-dëgg ñàkk lu mu teg laa taxsabanna sururan daiman abadan man sarrahu zamanun saatuhu azmaan mu ne bul njootu yow doomi aadama bi ne mbégte dafay sax uh-huh. mu ne ay jamono bu ñëwee mu neex ak yow lool xamal ne am na bu topp ci gannaawam boo xam ne daan naqad ak yow lool benn buur dafa musa wax ministre am ne ko dama bëgg nga bindal ma ci sama jaaro bi loo xamante ne bu ma meree xool ko damay kontaan moo kontaanee xool ko damay mer xam naa ministre bi comme nit ñi duñ daan tànn ministre bu yu oyof boobu ñu yaa bopp yaa xalaat dañ daan tànn ministère bi dem jël jaara bi bind ci ne waxtu wi day fàtte day day day romb ñëw jox xaaral waxtu sayam bi waa ji takk bu kontaanee lool ba xool jaara bi gis ne bindal na ko ne heure bii nga nekk lu mu neex ne day passé mu mer waaye bu meree xool jaara bi te mu ne ko waxtu wi day passé mu kontaan xam ne mbégte mi ngi ñëw ci gannaaw nit ku nekk tamit lool war na ko jaara boobu war na koo takkal boppam donte ne takk ko boo nekkee ci mbégte xam ne amaan amaana gannaaw mbégte bi naqar moo ci topp moo ci topp boo nekkee ci naqar tamit nga xam ne gannaaw naqar bi mbégte rek moo ci topp dégg nga euh, jàngal nañ ko ci njëkk ci commencement darse bi ci euh, bussi li muy wax ci xikama mi di wax ne jafe-jafe bu nekk euh, dana ñëw lu baax topp ci bari na loo tiitoon ba yaakaar ne du dañ te fekk na yàlla dana ñëw yombal ko jàng nañ ko tamit ci bàyyi ni mu ko waxee ci ci ci ci ci ruuxul adabi moo tax mu ne laa taxsibanna sururan daiman abadan ndax bayt yi ñu fi jàngoon keroog mooy samaniyatun la budda minha ala al fata loolu mënta ñàkk nit kuy dund faaw nga romb ci loolu mooy yenn saa yi nga kontaan yenn saa yi nga am naqar yenn saa yi nga dajaloog dajeeg mbokk yi dajeeg xarit yi yenn saa yi nga wér des yow kese yenn saa yi nga wér ba mën lu ne yenn saa yi nga lompañ feebar doo mën lu nekk dégg yi mbir yi yomb tamit yenn yi mbir yi mbir yi jafe àddina moom mooy doxee noonu moo tax mu ne laa taxsibanna sururan daiman abadan bul jàpp ne mbégte yi moom dafi sax dappet déedéet man sarrahu zamanun saatu azmanu ay jamono bu ñëwee bég loola ba mu neex ay jamono mi ngi ñëw yoo xamante ne dana la dana la merloo ndax li ciy am آه، دولا نخ من صار وزمن ساعة أزمان إذا أنا بابي كريم أه؟ إذا جفاك خليل أه؟ كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوانه قوم كد يقول لي مخنا فكل الناس خوانه نك لك وهي من عاشر الناس لاقى منهم نصبا ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوانه bayti bi naka la ida jafaaka xalilun kunta taalafuhu fatlub siwaahu fa kullu nnaasi ixwaanu mu ne boo amee ab xarit boo xam ne sa xarit la woon ngeen ànd bés ñëw mu biccingal la wan gannaaw utal beneen xarit bu dul moom rek xaw ma ndax noonu la yombee de mu ndax nit ñëpp ay mbokk lañ nit ñëpp ay mbokk lañ mbëggeel boo xam ne ñëwut ci ci yomb-yomb ñewut ci bindere non rek jaru sakku mom la imam اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تكسر عليه التاسف ففي الناس ابدال وفي الترك راحه وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفى ولا خير في ود إذا لم يكن صف الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا ويلقاه من بعد المودة بالجفا آه، دي وحنا نشتبه وينكر عيشا قد تقادم عهده قالوا وينكر عيشا قد تقادم قد تقادم عهده ويفشر ويفشي ويظهر سرا كان بالامس قد جفا سلام على الدنيا اذا لم يكن بها خليل صديق صدوق صادق الوعد منصفا يام شافي من بودي نيتكي دولا تك لودو اي تشونا اندك موم باكو رك تا بابو بولشي ام بن نياخره سي غناو لول ndax mu ne nit ñi li fekk ñu ngi dund rek remplaçant moom du ñàkk te ku lay ku lay sonal tamit te xol bi nag sa xarit lu mu baax baax bu dee ànd bi daf la ci bugg a teg coono dëgg yàlla boo ko bàyyee bul ci am benn benn jafe-jafe boo xamante ne koy xalaat ci gannaaw ndax mu ne du képp koo bëgg rek bëgg na la du képp koo xamante ne yaa ngi sellal ak moom cofeel mi ngi sellal cofeel ànd ak yow mu ne fekkee nag ki ngay ànd ak mbëggeel bi nekk seen diggante nekkut bindere ñëw noonu dara tax koo mu ne mbëggeel boo xamante ne dañ koy forcer moom soxla wuñ ko mu tamit xarit boo xamante ne ëllëg dafay dafay dafay wor xaritam kooku moom yiw nekkul ci moom ngeen ànd démb nga bàyyi ko après nga ëlbati ko nag boo dajeeg moom mel ni mosu leen a seq lu baax te lépp loo xamante ne jaaroon na seen diggante ci ay wax nga ne xaaral rek ma jaar fi yàqu ko xanaa loolu moo taxoon waykat bi di waxoon ne euh, euh, di di wax ne euh, say noon ñi ngi jëriñoo ci loor la ci say buntu xarit wala keneen di wax ne ixdar sadiqaka marratan واحذر احذر احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما قلب الصديق وكان أعلم بالمضرة بو أمي كي نا خمنا كي سنون لا نا خم كي سخرج لا منا وتن ديكو سخرج بجنة يون وتن ديكو سنون ببين يون سنون مو أور بنا كده خمنا كي سكولا جم واكي مولاي بيت ما ينا سخرج بس بقلب ديكو نا كسنون منا موي جنا خم بوي يمي جار فور لور منا خرج بودا غور بودا سوتشي أدينا دعو دعو بيا بوكو نا كتير بهم رك ما تخمنه إذا جفاك خليل كنت تالفه فاطلب سواه فكل الناس إخوانه mooy li ma leen wax heure téere Oudar Baye ku koy jàng seen xikam yi ak ñoom liñ jaaree ci dund ñu bëri ci ñoom ñi dañoo nekkoon ci weti buur lu ci gën a bëri dund ñi far leen xaadi ak nangam nangam beneen buur falu génnee leen wala ñu bëri ci ñoom seen dund bi jeexul ci jeex bu leen neex moo tax ñoom essayé nañ nit ñi essayé nañ nit ñi mooy li waaj waxoon ne ibnu Durayd waxoon ne euh, inni xalabtu dahra chatrayhi faqad amarra li xiinan wa axyaanan xala jamono daal bu doon bu bu doon bu doon ay ay ween la bu am meew mu ne ñaari wàllam yëpp ratt naa ko yenn yi mu neex yenn saa yi mu naqadi léegi nag boo jaaree ci ci yu bari yu mel ni da ngay dem ba xàmmee nit ñi xam leen boobaa doo bëgg a jaxasoo teg ñoom sax ci ci ci ci ci buntu boobu lay waxee moo tax mu ne ida jafaaka xalilun kunta taalafuhu fatlub siwaahu fa kullu naasi ixwaana am na sax ku ci wax ne dahaba rijalu bi ahlihi faxtar li nafsika man tuwaax inna alladina tawadduhum hum naasibuuna laka alfixaax dafa mel ni jamono dafa xool ñu baaxoon rek dajale leen rek yóbbu fekkee da ngaa bëgg mbokk xoolal bu baax ki ngay mbokkoo ak ki ngay àndoo ndax ñi nga xam ne ñoom nga gën a bëgg ñoom ñooy nekk di la degal ay ay ndëgg sarax yoo xamante ne boo ci jaaree rek yàqu loolu lañ la bëggal moom la Baye sax wax na sukari lu mel noonu إنك فرب إخوان سوء كنت تجهلهم أو كنت تعرفهم عليك قد حقدوا رأوا عليك قبولا زدت فيه علا على علا منك بالأنوار يتقد قد أضمروا لك ما جرى البلاء لهم وأظهروا لك ما أثاره الحسد وكن على حذر ممن تودهم منهم إذا اجتمعوا يوما أو انفردوا إلا قليلا من الإخوان قد عرفوا بالصدق قد غرفوا سرا به سعدوا كفى بأنك قد قدمت بينهم مقدمين لهم في سيرهم رشدوا قاموا مقامك في سر وفي علن فتم منك لهم من شيخنا المدد mu ne ko bëri na ay mbokk yoo xamante ne ñi ngi la jege waaye mbokk yu bon lañ nga réeree leen wala nga xam leen dañ laa bañ carrément loolu ku ko wax ku matut moom indil nga ko problème bët bu set day commencé di nit nit ñi kan la ci ñoom waaye ku mat ni bay loolu du ko lor fekk na mu xam na loolu te jéggale ko bu yàgg mooy dañoo gis yàlla may la xabul nit ñi bëgg la yàlla dooli la ci xabul boobu kawe loolu nag mooy takk seen mooy taal seen xol yi ñi denceel la ci seen xol yi mbañeel boo xamante ne mbañeel boobu sax moo leen sababal xay yi ñu nekk nii yëpp te liñ lay woon yëpp daara tax ko tax ko feeñalu ko lu dul kañaan gi nga xamante ne moo nekk seen xol moo tax waxkat bi waxoon na ne noonoo bu nekk yaakaar nañ ci bës mu soppaliku nekk xaritoo ba mu des koo xamante ne xiñaan moo tax mu noonu la ma ne ko nag ñi nga bëgg yow sa bopp yow ñi nga xam ne yaa leen bëggal sa bopp wattandiku leen ba mu des ñu néew ci say àndandoor ci say taalibe nga xamante ne xam nañ ci ñoom dëggu ak mbëggeel bi ñu am ci yow te ci dëggu ak mbëggeel boobu ñu am ci yow lépp luñ tànqati ci géeju maarifa yi rek ci géeju xam-xam yi rek ñu ngi ko jëlee ci lool ta doyna len rek ne jital nga ci ñom ay muqaddam yo xamantene ñi ngi dox ci njub comme yow ni nga doon doxé ci njub ku yare ba tek ay nit ñuy yare ni yow deug deug ak nga ci teranga motax mu ne ida jafaka khalilun kunta taalafuhu fatlub siwahu sama xarit la woon bàyyi ma rek tay lay dee déedéet jaru comme mom xeyna ba gis ne mun na doylu walis yow yow won ko ne ko ya gëna mëna doylu walis mom wa kullu nnaasi ikhwan wa in nabat bika awtaanu nachata biha فرحل فكل بلاد الله أوطانه ما يبيت من دون فيري شيء شيء شيء كنام رك من وإن بد بك أوطان نشأت بها بونك أي شيء أيدك يا خمن تني مين عنفا ولا فنجس وصوصة عنك فا ياو من الله خسر رنجدم وايا واجي وخوننا نقل فؤادك حيث شئت من الهواء ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل من تخل الصخول فلا نيخ تي بغ أنا بغون فاتو فاتو بغة تولا من بايكو نغدم تي نغدم تي أجارك واي من من بو دفع لول خمال كي نجك بغ مو موم سنبغي الحب إلا للحبيب الأولي أمنا ساي ساي بنيو لك موم شانجا كوني نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب ما الحب إلا للحبيب العاشر كو موم بارناور منكو برينا بيت بني تهاجب دبوب صح كم منزل في الأرض يألفه الفتاة برينا واتش واي بو خمنتني نتكي منكو واي نك وحنينه أبدا لأول منزلي ندمنا بأمريك نك فتي جام waaye saalum bii mu yaro heure bu nekk buy namm saalum lay nam loolu yàllaa koy def ci bindare ci bindare ci bindare doomi aadama moo tax mu ne boo nekkee ci place mu xat ak yow farxal fa kullu bilaadillaahi awtaanu dëkk yi yëpp dëkk yàlla yi yëpp ay dëkkuwaay la yoo xamante ne nit mun na faa dëkk ah. yàlla nañu yàlla dimbale yàlla boole méngoo ñu xool jëm ci ñun bët yërmande bët ngërmande li ñu réeree yëpp يالنا نكو يالا خمال جاي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم